tamit actualité ban da ngay topp jeex. xam naa daal waa Algérie ñu bëgg seen réew lañu joueurs yi bëgg nañ seen réew population ba bëgg nañ seen réew presse ba bëgg nañ seen réew waa Algérie bëggante nañu. lan moo xew Guinée Bissau ñun Sénégal daal suñu bëggee jël coupe d'Afrique il faut abaa man ma bëgg la nga bëgg ma Ndiaye bëgg la ma bëgg ko il faut ñu bëggante suñu bëggantewul du mos a jël ñii xoo équipe bi nañ seetaan télé yi seetaan rajo yi. xool Facebook bi ne leen xàmmee am na ko xëy di wax affaire médiocrité ci ci ci euh, Lions yeeg joueurs yeeg yooyu kooku ca la ca la bokk. billaahi wallaahi tallaahi ca la bokk. li wax nii da ngay réer. réeral ñu da nga naan diw ci la. bokk nga seeka xam nga bi match bi jeexee. dañ maa réñoo xool wuy ma njaay. bi wër match bi jeexe dañ maa réñoo. sama mbokk dañ ma réñoo dànkaafu ma. yow mi cax ca nga bokk. Mm. dànkaafu bi mais c'est dommage. ki ma wan ki nga xam ne mën naa waat ni moom ku bëgg réewam la moom. Mm. bokk na ci Youssou Ndour mi nga xam ne tey maa ngi leen concert bu mag a mag a mag ci place de la nation loolu moom mën naa ko waat. nañ dem nga wax ni lan moo xew Guinée. c'est dommage. y a rien de sunu doom yi daal da koy. ñàkk nañu final bi sport la. nañu toog muñ. lii gañ bi dinañ muñ. jeex na mais dinañ muñ. amu fi leneen. 24 équipes. dama ni dinañ muñ. mais Sénégal. di jël deuxième. suñu bëggee di jëm jël ndam. baax na de am ndam. baax na de il faut ñu bëggante. baax na de suñu bëggantewul du ñu am dara. kon ñàkk bëggante daal moo ñu xañ ndam de. ba billaahi yow waxee woo ci sport yow da ngay wax. waxuma waxi sport parce que tey ji su fukk di gas fukk di suul yéen mais ñi doon suul fii ci dëkk bi ñu ngi fii ci dëkk bi njaay yaa ma gën a xam loolu. peel yi gas ak yi suul yëpp peelu yàlla ko ëpp doole. waaw mais moo ko ëpp doole gis nga yii ñuy wax ni ay diwa def lii ak a def laak yàlla moo tuddagul ndam li war a ñëw Sénégal c'est que man. j'ai l'impression que nit ñi dañuy fàtte yàlla loolu moom dëgg la. yàlla moo ko tudd gis nga bis bu ko tuddoon. Uh-huh. bu ñu football sax dina dinañ andi coupe bi. d'accord mais bu ko tuddee bu ñu doon football xoolal ba gàddu mm, amat amat. di football ak moom du tax ñu jël ko. mais nag journaliste ya nga xam ne ñoo fa demoon na ñuy jouer seen rôle. na gis nga di nga leen laal bëgg a xamal. journaliste algérien yi dañoo jàppale seen équipe jàppale seen entraîneur. bala may bëgg day journaliste yi ñu bindal que ni Aliou Cissé ak entraîneur Algérie bi ñoo bokkoon koñ ak ñoo bokk lii loolu sunu yoon nekku ci <laughs> nañ ñu waxal waxal ci Aliou waxal ju ci équipe bi waxal ñu ci. Aliou Cissé luñ ciy wax non nañ ñu waxal ci sunu équipe. Aliou Cissé luñ ciy wax ñu waxal ci sunu. moo raté woon penalty bi 2002. et après Aliou Cissé luñ ciy wax yóbbu final. Euh, am na de kii a njañ. <laughs> Aliou am na mérite <laughs> ah yow mi critiqué journaliste bi toog di critiqué Aliou moom Aliou def na dara ci réew mi moom lu mu def ci réew mi baan. dañ bàyyi nit ñi tekkiwul dara toog di di di di xas ñoo xam ne dañoo def lone ne pour seen réew. baan waaw yàlla ñu joxagul coupe bi. waaw loolu dëgg la waaw dëgg la loolu rek la te Ndiaye amul leneen ah. te Ndiaye foog naa ni. ñàkk coupe bi daa gën ci ñun. Ndiaye mbaa xam nga ni coupe bi buñ ko amoon nit dana xëy war a liggéey ba fa liggéeyam dem toog ci ah, ay maamam ñu lay waxal naan la lii nga war a def ak lee nga war a def. nan ngeen ci sport bi ñi nekk ci YouTube bi di wax ci équipe bi. nañ assemblée nationale nañ foofu voté benn affaire. Guinée Bissau non non man man yéen daf mel doo leen ay Sénégalais. bàyyil ba 2021 bàyyil équipe bi de duñ ko bàyyi. ñiy def ay vidéo ci YouTube bi. Serigne si ñoom ñëpp laa wax tout le monde police da leen na war di woo teg leen coupe d' su commencé te ñu woo leen teg leen ci barab ku ci wala teg la ci barab ba coupe d' afrique bi jeex nit ñi dañoo sonn ci ci ñoom xamuñu dara suñu xamoon dara sénégal du dem final foofu am na abi foofu moom am na abi moom foofu moom dara xamuñu foofu moom am na fa ak yow kii ndar la dëkk foofu am na abi da doon ndar la dëkk da doon xuloog benn xaritam dóor ko barre de fer mu dee barre de fer weñ waaw da ko dóor